laaj laaj bi dama bëgg ngeen xam ni bii paa xeex bi suñ ko tàmbale amatul dellu gannaaw te du jeex lu dul Macky Sall abal nañu. moo tax bu dee moo tax bu dee parewu leen da ñu naan parewuñu ñu teel a teg mbir yi. bàyyi mu def li muy def waaye bu dee pare ngeen man ak yéen ci yem suñu bakkan nañ ko tayle gis ngeen fii amatul luñ fiy dissertation ci Macky Sall Macky Sall faalewul sénégalais Macky du góor Macky du naxante moo ko fi jëlee. benn Sénégal du diine du mouvement citoyen du parti politique du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg-bëggam moom ak soxnaam ak i doomam ak ñi ànd ak moom loolu rek la xam jàpp na ni keneen ku dul kooku ku mun a tër la rendi la fees la jaay yàpp ba wala mu séddoo ko moom njabootam toog jàpp njàmbur mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam bu ñu xeexul ak Macky ñun ñii ñëpp Macky dina jaar suñu kaw. moo tax nag bu dee pare ngeen pour xeex bi nangeen ngeen xam ni bii paa buñ ko dooree amul taamoor amul dellu gannaaw te xeex bi nag ay niveau ay degré xam nga men booy mooy ban mooy dem leen bindu ci liste électorale yi parce que tappale yi muy def yëpp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci liste yi la nee na un mois la koy def waaye boo calculer ba ci biir matul sax 24 jours ndax boo génnee dimanche yi génne feet yi matul sax 24 jours moo tax bu leen toog ba dernier moment ngeen di jóg. bu ñu nee ubbi nañ ko suba dama bëgg fépp fu ñuy bindoo mu ñuul kukk ak nit ndaw ñi fees fa dellu dem bindu ji mooy premier degré xeex bi deuxième degré xeex bi mooy Macky Sall nee na am na ñoo xam ne duñu doon candidat fii en 2024 xam ngeen man mi di wax ak yéen taxaw nii on est mois d'élection présidentielle ba fi ñu taxaw nii candidat la waaye sama mag jii di Khalifa Sall Macky Sall na ko doole 2019 nekkul candidat ma ne leen Khalifa Sall day doon candidat parce que dootuñu nangul Macky Sall muy tànn kan mooy dem élection ak ku dul dem. Macky Sall nee na te yaakaaru lu dul justice magistrat yi moo waxaat leen ko magistrat yi mooy tureen seen bopp parce que réalité politique yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky Sall dalaa jox xaalis wala dalaa jox promotion wala dalaa xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat bu kooku nekkul candidat yi yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu nekkul candidat sa nekk ci réew mi dina jafe magistrat yi moomu leen Sénégal kenn du fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu ci waaye comme nag da ngeen jaay ni soo waxee ñu ne force restera à la loi la loi est la loi du peuple que vous seen force man de naa leen man Ousmane Sonko dama décidé xeex lu xeex bi laaj rek dinaa ko def dinaa ko def xam ngeen président Khalifa Sall bi ma tollee fi ma tolloon dafa bëggoon a won sénégalais ni moom homme d'état la bëggoon sénégalais ni moom républicain la bëggoon sénégalais ni moom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moo tax ma ne leen man institution Macky Sall faalewu ma ko république bu Macky Sall ko hors la loi ñoom ñooy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne moo tax farata la ñu xeex ñooñu ak xeex bi lu mu laaj ñu jàmmarloog ñoom farata la moo tax ma ne leen sama discours bu weesu loolu de les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ j'assume man je l'assume fa yem ndax ku seetaan gis nga ku fi seetaan ba ñu def lañuy def ba pare ñi ñoon ñëw di la jaay ay naan ñoom ñooy les républicains ak di la jox conseil fi ñu toog la ñuy toog naan ndeysaan prison sax dañ la fa yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex joxuñu nit xaalis sàcc ñu réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu amut waaye dañoo bokk ak ay xalaat ci li war defar réew mi jële fi nger ak sàcc xaalis jële fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko Sénégal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale bu maandu lii lend la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi koy gën ba tey mu egg si fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi. Macky Sall ak quelques magistrats. ne ñoom ñoo am fitu ne li askanu li ëpp li ëpp ci askanu senegal li ñu bëgg ñoom dinañ ko tere moo tax ma ne leen Macky Sall fii mu toll nii ci ñett la yaakaar mu ngi yaakaar ci ay milice jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministre yi xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen jeunes yi laay wax bis bu ministre génnee songu fi ay nit fu ñu munti nekk fekk leen foofu ba seen biir kër fekk leen foofu te li gën a yéeme les forces de défense et de sécurité xam nañ milice yi de am na milice yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi te du leen jàpp ñun bi ñuy wax gatsa gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR laay wax si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie fële ngeen génn jàkkaarloo ñu APR laay wax de ñun yoruñu ay ngendaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gàtsa gàtsa xam nga ñan la ñuy wax c'est poltron de la PR sàcc xaalisu réew mi dem di fay ay milice foog ni loolu mun na leen sauver yàlla xam na ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi dama ne réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu lañu ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main yeneen réew yu ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallaahi yéen laa koy wax la jeunesse 2024 ñu soppi réew mi 2024 changement commencé fi ba fay 2024 yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi jóge fi définitivement loolu nag lañ leen bëgg a est-ce di ngeen ko nangu moo tax ma ne leen le 14 le 15 le 16 autorisation au plan ñun ak Macky ak justice ak police am ak gendarmerie am ci réew mi police laay waxal ak gendarmerie ñoom xam nañu ñan ñooy les milices ñemewuñ leen jàpp te pourtant léegi balaa ñuy commencé meeting bi jàpp nañu kaba bi dëkk fii Parcelles Assainies police jël si na ko mi ngi commissariat central suba ñu xëy ne terrorisme lañ ko attaqué ñu ngay wër seen renseignement généraux naan dañoo jëlee ay nit Casamance andi leen fii ñii nekk fii yëpp waa Ndakaaru lañu waa Casamance da ngay manifester Casamance waa Mbacké dinañ manifester Mbacké waa Ndar dinañ manifester Ndar kenn importé wu fi ay nit Macky Sall nag li ma koy wax du bëri dafa jeexal tak tak tak ñaar moo am Barthélemy wax na ko na rafetal demam ni lay Wade deme woon Abdou Diouf demee ko mu dem bàyyi ñoog suñu réew ci jàmm defu ko nag ah Cheikh Tidiane yu wax Cheikh Tidiane yu wax na ko de demam dina ñaaw lool lool lool dina ñaaw lool may lancer nag un appel à nos forces de défense et de sécurité ñun li ñu gën a am li gën a li gën a sacré ci Sénégal mooy armée sénégalaise l'armée sénégalaise moom la sénégalais bëgg kenn ku ne ci ñun bëggoon na nekk soldat kenn ku nekk soldat ñenn ñi jot nañ koo nekk comme Déthié Fall ñun ñii essayé nañu concourir sax bëggoon nekk soldat parce que amul lu gën a jekk joxe sa bakkan ngir sa réew armée sénégalaise boobu yàgg naa sauver Sénégal yéen a ngi fàttaliku mai 68 professeur Ablaye Bathily mu ngi ñuy fàttali lettre bi nga xam ne général Jean Alfred Diallo moo ko bindoon président Senghor ne ko l'armée ne te laissera jamais marcher sur le peuple te lii ak lii ak ko bàyyi lii ak lii ak lii ak lii na nga ko def loolu mooy l'armée sénégalaise armée boobu mooy le salut du Sénégal à cette armée ma ne leen bu ngeen nekkee dans les tranchées en Casamance ou partout dans le monde nekkalu leen fa Macky Sall peuple sénégalais ñooy fa président dem na président ñëw l'armée demeure c'est une armée républicaine c'est une armée du peuple sénégalais bu dee fi ñu jëm Macky Sall bëgg na def ni mu def nous demandons à l'armée de jouer son rôle comme ni mu ko mos a joué te xam nañu nag li xewoon ah. ndax Macky Sall li muy bëgg a def ci biir armée bi depuis quand aide de camp aide de camp kañ la musa doon général ci armée bi aide de camp président de la république jël benn aide de camp général Sélé Maysa Sélé bugg koo teg ci kaw semga bi nga xam ne sax moo jiite armée bi parce que rek am na lu mu bëgg te suñu armée républicaine bi du ko musa nangu je dis à vous avez le